Kaaw Ba maa ngi leen di fay bu baax. lan war a euh, sama rakk la donc tey mu woo ma ne ma dañ koy takk tey moo tax ma ñëw voilà. ah macha allah di ko ñaanal yàlla rek ndax toll na ci. donc bu ko yàlla boolee ku baax ah, macha allah borom këram ku baax la xamante nañu ak moom bu baax donc dañ koy ñaanal yàlla incha allah yàlla na sëy bi barkeel seen ànd dara bañ cee laxasu. bu ko yàlla tuddee rek man waaw waaw bu ko yàlla tuddee incha allah <laughs> bu ko yàlla tuddee rek incha allah waaw yu baax yu ne incha allah nañ ma xaar voilà donc ñu yëngal décembre ba mokk <laughs> voilà Dieyla mhm. euh, sama rakk la mu sa doon sama rakk bu baax ku ma mësa a bëgg la ku ma mës a fonk la donc bi ma woowee ne ma damay euh, dañ may takk ba pare ne ma yow laa magalee sama bopp dama ci am fierté am ci contentement ndax euh, ku neex euh, rakkoo la vraiment daf may woo di ma nemmeeku bu wetee woo ma di ma seet si man tamit donc euh, voilà sekk nañ leneen loo xam ne du aar rek moo ñu boole dem nañ ba doon ay sœur bokk ndey ak baay di ko ñaanal rek di ko conseiller mu mu mu mu continuer ndax moom nit ku baax la nit ku yaru la lépp lu ñuy wër ci jigéen tamit mi ngi ci moom voilà donc euh, di ko conseiller rek na góorgóorlu bu baax incha allah voilà et yàlla baax na. ah loolu de moom dëgg yàlla yéenewu ma ko kenn voilà euh, lu war a am la rek yàlla mooy boole yàllaay tàkkali waaye lool tey moom du bésu wax ci yàlla ni muy tàkkali parce que tey sama rakk day dañ koo takk waaw ah, farata yàlla ak sunu Muhammad donc di ko ñaanal sëy bi barkeel waaw mu am ci njaboot yu barkeel rek nag incha allah